waaw kay honorable Kura yi noonu. dem seeju nag ci jàmm ak salaam. Hmm? ñu war del si xaadim ngay ne ba caméra bi nag. bii moom maa koy filmé moo tax gisu leen ma. ne yaay Kura xaama nag lay tag moom ah waaw kay. ana Kura <laughs> ki koy mën ak ki koy jéem. <laughs> Aïda Patra la wax. non xoola ëf laf cat nañ dem ah, laf xaadim nañ dem. jeex na waaw man nag gisu leen ma parce que maa ngi ci caméra bi après dañ gis bis bu jotee da ko gis ku ne makkee ngoog honorable waaw kay ñun fii lañuy ñuy jógee dam nuyu ji son excellence si waaw kay. honorable nga noonu monsieur Pouy fii la may yóbboo de war a ndax moom moom moom nee naa la ki koy mën ak ki koy jéem duñu benn te duñ ko mës a doon ñoo ngi nii def leen nuyu ñaanal leen ni jàmm ak salaam waaw kay wala man ci kanam laa jëm wala waaw loolu mooy yoon <laughs> le directeur waaye ah, alhamdu ñaanal leen ni daa ngeen jëf daay direction Sédhiou c'est son excellence si ni ko kuréel di waxee wax day am fin xanaa. ay jeex na. maaleykum Sénégal Sénégal yi fi toll ci àdduna Khadim Gueye fii ci Sédhiou nag cette fois-ci ñëw naa Sénégal war naa leen ndar moo fu nekkee dem nañ Ndakaaru gis ngeen départ honorable kuréel mag yi ñoo ànd def voyage bi pour ñëw fii ci Sédhiou gis ngeen image yooyu ma leen jëkk woon noonu ba ñuy jógee Dakar la démb. fii lañu fanaan ñoo ngi xaar président mu war a ñëw mais ak seen après midi moom ñëw en attendant nag ah beneen honorable Khady moom moo ñu recevoir fii ak kuréel mag yi ak Aïda ak délégation bu garaaw bu ñu fii war a toj toj fii wàccee ko ba zéro lépp war a xewee nag fii ci Khadim Gueye TV xam nga nu may def gis ngeen suñu jàppar bi nga Dakar léegi dama leen interview boo xam ne Aïda Patra moo ko def ak honorable Coura Macky ak honorable Khady lan lañ nga xam ne yéen ñuy seetaan seen télé bi nga xam ne safoo ngeen ko mooy Khadim TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm fu waaye nekk fu nekk jox nañ la loxo di la ziyaare bi la ñaanal jàmm bi sax daal tey nag mi ngeen ñu gisee nag ñëw fi nga xam ne moom mooy Sédhiou ànd ak seet ki nga xam ne mooy honorable Khadijatou ànd ak ki nga xam ne mooy honorable Coura Macky yi nga xam ne kenn dootu ko laajte ñu ñëw fii ci Sédhiou tey dañu bëgg a waxtaan ak yéen laaj leen programme bi nu mu tëddee ñu xam tey lan moo fi xew àdduna bi yëpp ñu mën leen ko woon kon ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu honorable nga nuyoo. Euh, maa ngi kontaan si yéen di leen dalal si région de Sédhiou département de Bounkiling di nuyoo seen délégation. jël nuyoo bi teg ko si honorable Koura Macky boo euh, xam ne kenn du ko laam-laamee Sénégal fu mu toll nii ci bëgg président excellence Macky Sall euh, bu loolu weesoo ñu ngi euh, nuyoo suñu DG mu ñu dalal ñun yëpp El Hadj Mouhamed Dieyte ñun jigéenu Bounkiling moom la am mooy sunu loxo mooy suñu tànk mooy sunu lépp kon balaa ñuy jiital kenn moom lañuy ñuy jiital si nuyoo bi di nuyoo nag président excellence président Macky Sall ñëw na di tàmbale ci ministre de la femme dëmb def na lu lu doy waar lu baax lu rafet ci région de Sédhiou di ay matériel di ay financement parce que 100 millions la joxe mësuñu ko am région de Sédhiou kon yàlla ak Macky Sall moo tax moo tax ñu ne Macky doyaluñu 2024 ba 2035 ñoo ngi ak yow duñu dàmm duñu sonn duñu taay parce que boo nee politique dañuy ne jeunesse bi ak jigéen ñi mais jigéen ñi moo tax sax te ñun jigéeni Bounkiling pare nañu pour delloo la 2024 teg la si kaw siis bi parce que dañ koy boo ko defulee sa dañ lay porte plainte ñun jaral dañ ko fu mu nekk loolu weesoo programme bi nu muy demee dañuy waajal dem inauguré poste de santé Kandiom Mangana ak ministre de la femme bu ñu jógee foofu jaar Bounkiling maison de la femme boo xam ne PADES ñoo ko ñoo ko fa samp pour jàppale ba tey population bi waaye lépp sa sallagaañi moo tax président excellence Macky Sall moom moo ñu yéeg teg ñu fu ñu war a teg jàppale ñu jigéen ñi ku nekk xam nga ni ki président programme moom kenn waxatu ko mais ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak wérle du bu loolu weesoo bu ñu jógee foofu dañuy dem teeru ko teddal ko dalal ko ci région de Sédhiou parce que région bi ci loxoom la nekk surtout département de Bounkiling 2012 ba tey ñun ñooy gagné benn bokk yaakaar département de Bounkiling bu joge fofu bu boba suba inshallah allah bu boba lay jakarlo ak njabot bi ñu wax ko suñuy soxla parce que mom bu da fay né wax leen seen soxla bu ma mënulee yépp tam genn wala bi dina leen ko def incha allah di leen sante di leen gërëm wax bi guduna na yaram bi mo xawa tag tàng bu may wax président sama yaram day tag wala Khadim ñu ngi dégg honorable Khadidiatou loolu mo wax muy wax ju am solo vraiment dañu jël kàddu gi jox ko honorable député du peuple kura Macky nga xamné ne bayé ko dakar mom ndaysan bëgg président fu mu nekk rek mu fekk ko fa ñu bàyyi ko mu nuyoo bu ñu koy seetaan ci Khadim TV ah xanaa di kontaan rek sama nijaay di ñaanal nag sa télé bi yàlla na ci yàlla yokku barke bëggkatu président Macky Sall ñu ñëw fii nag fekk fi honorable Khadim kontaan lool nag ndax mënoon nañ di jóg di ñëw Sédhiou du ñu am fu mu dal mais daf ñu topp di ñu wax pour ñu ñëw ndax volontaire am ak bëgg Macky ñu ñëw nak fekk fi DG Mohamed Diakité ha ah. mm-hmm. nit ku baax nit ku ubbeeku nit ku bëgg président Macky Sall mais kenn do xadi honorable mm-hmm. Limu wax fi yëp nak duma ci waat mm-hmm. ndax maké ni mel kon ñi mo andal il faut que ñu def li ministre de la femme nak limu def fi ci réew mi ci digi digi sey gi daf may neex parce que buñ nee àddina ni jigéen moo tax kuy jàppale jàppaleel jigéen ñi ndax ñoom ñooy doxal àddina di kontaane nag Sédhiou ngoon nag sama nijaay fii moom dina toj nag Khadim TV lañ koy wax bëggkatu président Macky Sall bi ñoo ko déggandoo ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal mu nekkoon benn interview bu ndaw bu ñu doon def fii ci biir euh, suñu télévision Khadim TV di leen joxaat dox daje ba ci kanam dinañ continuer suivre programme yi ak